ci yan bi mu ko yan moo ànd koog moom ba am ci ngërëmul Serigne Touba ci tënk bu gàtt rek ndax yàggu waxtu wi mooy euh, ginnaaw bi nga xamante ni bii li ngeen dégg lépp xew na te man awma kàddu parce que du sama jëmm moo tax ma toog fii wala sama lan waaye ñi nga xam ni danoo bokk Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Rasul sëriñ Cheikh Bassirou Mbacké moom sëñ Abdou Khadir muy toog di porte parole bu Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké ci anam boo xamante ni bii xëy na naan yàlla rek parfait mais mel na ni matal na ko sëkk nga xam ni la ma séq ak moom ak fa ma jaar ak moom bu lu ñuy wax fii ginnaaw bu ma woowee xamal ma ni ma nañ gisee bi mu ñëwee am na lu jiitu loolu lu jógewoon sëñ bi demee moo ndigal sëñ Cheikh si Mokhtar dégg ngeen ko yéen ñëpp jëru dellu mu am lu ma wax jox ma ci ndigal te foofu dinaa fi fàttali tuuti mooy ñun du ñu agir ci lu dul du ñu agir ci lu dul ndigal parce que ngeen jéggal ma Sëriñ Tuubaa dafa waxoon ne bi mu ñëwee jamono. Donc vous faites que soit étalé, occupé, occupé, place.